cent li ñuy produire par année gaz bi it bëri na mais it ni ñu koy garaawalee demeewul noonu deuxièmement pétrole bi sax 30 ans lay diire man dafay su 30 ans après 30 ans lay dundee pétrole day am limite mhm. waaw mais ñëpp ngi basé wuñ ci loolu doomu sénégalais yu bëri yi ñu ngi dugg ci ndox meeg indi gi de tubaab bi tëj seeni port nañ xam ne tey jii bu leen tubaab yi bàyyi woon foofa ñu dëkk ñu ñëw dëkk ci suñu réew mi danañ ko defar ba bu ëllëgee dañuy indi gi di ñëw la fa nekk ko ay nit a ko defar réew ay ndaw la soxla nañ toog liggéey seen dëkk yi ndax seeni doom mën a dund li leen dal bañ leen a dal loolu moo gën du buñ topp seen bànneex ci ay immeuble rafet na ay lekk neex na ay nañ wut luñ def seen poos nañ toog fii jaayante ko fi loolu nag seeni njiit na leen ci jàppale ci accompagner leen ci jàppale leen ci liggéey jàppale leen ci ba ndax tukki yi mën ta ñàkk ku gis ne it barab bi mën nga fa dem am dara nga def ko boo waree jàppale sa réew nga ñëw parce que bëri na lu bari lu fi def ñiy def énigé de ñoo ko fi def waaye nag buñ ko jaarale ciy géej lu ko fi jar dara jën ko fi yow boo ñàkkee sa bopp nekkatoo ci àdduna amatoo dara looy looy suyee rôle ci àdduna jër ko ñu ñuy reetaan di tëj seeni porte te ñoom buñ développé xaaj bi ci ñun lañ ko jëlee tëj seeni porte naan bu leen fa dugg nañu gore ci suñu bopp te bañ a xeeb la suñu bopp garder suñuy culture sunuy maam yàgg nañoo dund te jaaruñ ci ay géej demuñu Europe nañ bàyyi complexe bi sénégalais nag moo du lekk du naan ñëw restaurant fa tawu fa def nii jël xaalis yu jàmbur wane ko mais mi ngi influencé moroom mu defe ne da koo war a am tiitaru bi ak sago bi xam nga bu njëkk loolu sax ci góor nga koy gis <laughs> mel ne day continuer jigéen nga koy gis <laughs> liñ ci jublu mooy di la gondi yow góor gi adduna mu toll foofu il faut que ñu bàyyi complexe africain yi ko li Cheikh Anta di wax colonisé bu yàgg moo leen jàpp ba seen bopp yi dafa feebal da ngay gis ministre de la république wala président di tiitaroo may pat ngàbbu téléphone fekk sant yoo la moom am na xale bu ndaw bi ngàbbu vélo moo créé loolu di dox moom ko am ay milliards dollars am te du ko manifesté woo nañ gëm ne suñu réew yi dañ koo war a defar parce que dañuy jël oto yu ndaw di ko imposer seeni état di ko yor pourtant am na ñoo am oto yu mag de mais parce que seen marque la ko liggéey ñun ban marque la ñu liggéey meew dama koy jëndi suukar dama koy jëndi lujum dama ko jëndi léegi bu ñu tëjoon géej gi léegi wala ñun yenn guerre yi am fu ñu jëm bu ñu amati lu ñu lekk daloon nañu guerre mondiale yi àbbi séer amatuñu woon sax luñ sol hmm. ñetti weer boo ko tëjee fii production du essence du ceeb du dara amuñ stockage bu doy nit ñi dañuy dee mën nañu dem sax bay rekkante seen biir parce que bu xiif moom amul sax léegi loolu nañ ko moytu te xam ne dañoo war a mbay maa ngi fii àll baa ngi fii ñu def liñ tollool def développement politiciens yi di diggee xaalis yi ñuy diggee fan lañ koy jële amuñu ko ay dat lañ feese deel nañ wax nit ñi dëgg fii lañ nekkoon ñi daan diggee yëpp liñ diggee ndax def nañ ko nit ñi dañ leen a mujj mere ñi toog fii nii lu ne diggee ko mel ni ay médecins yi wàcc dañuy naxee rek ngeru ko yow euh, li nga xamante ni yéene nga ko sa réew mais am nga temps Abdoulaye Wade def na vingt cinq ans keneen def na leneen pourquoi deux mille vingt quatre